waaw mouvement Thiès si kanam donc euh, mouvement citoyen boo xam ni ay Thiessois yoo xam ñoo dëkk Thiès ñoo jëkk formel ko seen bopp. Euh, donc dire que peut-être que dafa bokk ci benn parti wala am na parti bu ngeen mais je suis péremptoire je dis que mouvement Thiès si boo xam ne amul kenn koo xam ni dafa nekk ci ginnaawam ak foo mën a nekk ak foo mën a bokk. mouvement Thiès si kanam et Thiessois je le jël seen initiative formel ko seen bopp tuddee ko Thiès si kanam. Et ko a jóg xam ngeen ko le développement de Thiès et le financement de Thiès voilà donc ngeen bëggee suivre euh, la suite de l'émission man maay nekk euh, invité Serigne qui Ndaw ci émission bu mag boobu tudd Torche euh, ngeen mën ñoo suivre à partir de mercredi à partir de 21h, une heures seen télévision Prestige à bientôt